coowal yokku mburu ñu di ko dégg fan yi lenn lu waral li ni mel bokk na ci levure bu yokku levure xaw na seer moom man moom wax dëgg yàlla fan yi yëpp sax jaay ma ko essence euh, yi prix bi sax xaw ma fu mu toll xaw naa ko jaay parce que ba ma koy jaay nii dama doon jaay borom beñe ak yooyu ay 300 francs boobu la lañ ko doon jaay mais temps yëpp jënduñu ko ndax day dem ba mu jëm benn cinquante franc nga koy mën a jaayee client yi dañuy mujj sawaruñ ci moo tax temps yi mu gëj ko jaay moom. lii itam di ab jaaykat waaye itam di ab consommateur li mu xam li moo di yokkute levure bi warul tax ñu daal di yokk li mburu te sax nag war nañoo mën a dellu ci mburu dugub. ñun ñu nga xam ne ñun ñoo fi ne consommation bu dee blé bi xool nañu ne dafa métti y plusieurs facteurs le mil est là mburu dugub a ngi fi. nañ ko jël ñu utiliser ko mais levure tamit nu mu yokk yokk yokk yokk yokk yokk non non waru ta mën a nekk prétexte en aucun cas levure bi waru mun ta nekk prétexte parce que ñoom xam nañ ne comment s'en sortir Khadim Cissé di ab boulanger bokk ci kuréel gi ngànk yi ay boulangerie fii ci Sénégal di dellusiwaate ci solo su levure bi mu am ci njaayu mburu farine mënuloo ko jëriñoo te dafa am levure farine kese boo ko mélangé te defoo ci levure Euh, dafa mel ne kuy lekk kew waaw koy comme kuy lekk ban du mën a nekk levure nga ci mën a def moom moo koy fermenté ba yëkkati ko ba nga man ko lekk mooy tax nga sentir ñooxit bi bon levure boobu nag bi ñu defee homologation bu mujj bii di cent soixante quinze bi boobu levure bi carton levure bu tooy bi bi ñu naan levure saabu bi mi ngi doon jar dix mille francs tey mi ngi ci quinze mille francs levure bi nga xam ne mooy levure sèche bi mooy bi ñu wax levure grain bi bu wow bi Euh, boobu mi ngi doon jar dix-huit mille actuellement mi ngi ci diggante vingt-sept mille ba trente et un mille selon ci importateur bi ak marque bi ak qualité levure am mais mi ngi ci bi ci gën a yomb mi ngi ci vingt-six mille te dix-huit mille daan jar kooku nag bu fekkee da ngay xëy di ci liggéey ay carton wala xaaju carton bu weer bu baax. courant bu cher levure bu cher lii la lépp di ay jafe-jafe yi nga xamante ni ñi di boulanger yi ñu ngi koy jànkonteel tax ba ñuy sàkku ci nguur gi mu saytuwaat bu baax li nga xamante ni moom la ñuy jëfandikoo.